tey kay xam naa ne euh, am nañ naqar ñun ñëpp waaye dañuy wëlbatiku defaat ko ak cant ndax suñ borom lu mu def loolooy li gën may wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon euh, sëñ bi nag nekk na nit koo xam ne ku waajal boppam la euh, sama goro la sama xarit la sama jur la dafa daan wax naan Bachir mii man maa ko jur loolu la daan wax kooku xam nga ne bu fekkee ne dem nga ba gisatoo ko boo nee méttiwu la rek waxoo lu am maa ngi koy jaal askanu sunu gaal biir réew ak biti réew di wax euh, réew mi ñàkk na ñàkk nañ ku baax nitu yàlla pire Cherif nekk na nit koo xam ne boo jaxasoowul ak moom doo ko xam day dimbali ay doomu aadama biir ak biti moo xam ngay taalibeem moo xam ngay doomam moo xam ngay goraam moo xam ngay soxnaam Cherif bawul kenn ku baax dem na ku gore dem na taalibeeb Cheikh Ibrahima Fall ak taalibeeb Serigne Saliou ak taalibeeb Serigne Fallou dem na moom li baax lépp dafa bokk ak moom waaw tey eh, dama doon waxtaan léegi ak gaañ ak nit ñi mën a leen wallaahi ku xool jaww ji di nga xam ne am na lu manqué ndax lan jëmm ju mel ni moom sëriif bu fekkee ne da masaan masaana am njàqare boo ne ko jàkk sa xel day dal loolu nag nitu yàlla képp moo ko man ba tax na ñi ngi ñi ngi ñaan suñ boroom mu xaare ko ca àjjanay firdawsi waaw waaw waa tuubaay waaw dëgg la waatu Touba ñëw nañ waa cees fenn desul moom nag dafa yaatu te sëñ bi kenn ku nekk mën ngaa wax ci moom ndax sëñ bi euh, nit la koo xam ne mbiram moo demee noonu kenn ku ci nekk mën ngaa wax ci moom nit ku yaatal la nit ku yaatu la tëjuwul man fu ne laa ko daan fekk ci këram gii heure bu ma neexee nu ma neexee laa daan dugg xoolul kii ndaw la xoolul kii lan la yëkkati la jox la doomam ba noppi di la nemmeeku saa su ne kon nim ma ko defalee ni la ko defalee ñeneen ak ñeneen. ñii kenn ku ne ak lim séq ak moom état bi kenn desul ëttu kër diina kilifa yëpp ñëw boo doon lim doo jeexal loolu nag euh, euh, fi mu ne kenn ku nekk sa bis rek ci la ñu xamee yow yaay kan bis bi ku fi ñëw gën ngaa xam Serif Abdourahmane Fall Tilala la man Serigne Saliou ma booleeg moom mbooloo mi bari na kenn mënu koo xayma te dañuy continuer di ñëw nii lay fanaane xam nga loolu ku dul nitu yàlla du ma ne doo ko am waaye lii jafe na Serif nag moo yaatu ginnaaw lépp ngi ci ginnaawam. kii di taawam di Serigne Aziz mi fi nekk yàlla na yan bi oyof Cheikh Moustapha rakkam ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax di di di di ko gën a jaale suñu mbokk taalibe yépp ñi nga xam ne ñoo bokk Serigne Touba waaw te laa nekkul woon ci buntu kër maam Cheikh Ibra rek dafa nekkoon dafa nekkoon dafay nekkoon ak ak askan wi yépp moo xam boo jëlee ci naar yi da ko fay fekk boo ñëwee kër Serigne Touba fekk ko fi boo ñëwee kër Cheikh Ibra te lenn génnul génnul te man nag li ma xam képp laay seede wa ma shahid na illaa bi ma halim Serif yàgguma ci keppaaram waaye am na lu ma wan ci boppam am na lu ma xam ci boppam ci biir ak biti xam naa ne kuy dimbali nit la te ku mën a wormaal nit la te ku mën a suturaal jaam la te àdduna loolu képp lañ fi am dañuy ñaan suuf oyof ci kawam ñi ngi ñaan doomam ji mu fi bàyyi yan bi oyof waaye wax dëgg yàlla ñàkk nañ te xajoon na fi waaye nag yàlla suñ borom lu mu def noonu la suñ Modou Kara léegi dafa wax daan ne dem gi bu mu leen jaaxal mën na ko dëgg la. mu ne day dañ koy xaal ak di ko xalaat ci saxaaba yi àndoon ak yonent bi doon dem xare ñii dañoo dagg seen bopp ñi ñu dagg seeni cër xoolal loolu lu ko gën a metti amul ñu taxaw jaayante sërif xoolal fi mu daanu te ay waxtaan wi mujj daan wax naan diggante xombal ak léegi tey sama mujjantalu àdduna diggante xombal ak bambay diggante boobu ay mujj waaw taalibeem seex bu mu gunge ko ba fa mu wàcc liggéey ki mu àndandool foofu mooy dëkkam ay mbokkam ñëw jël ko mook soxna si xoolal mënuñoo bàyyante ginnaaw dem gi dara du ci hasard Cherif nekk na nit koo xam ne ku ko xamul li ma la wax rek nit ki nag boo ko jegewul mënoo mënoo seede ci moom boo ko xamul mënoo seede ci moom man nag ñàkk naa sama waajur la sama xarit la euh, nit ku baax la loolu lañ xam ci moom te loolu la ñuy seede ñu ngi ñaan suñu borom Cheikh Ibrahima Fall yaakaaram jooju mu teeru ko ci àjjanay firdaw si wax dëgg yàlla suñu xol dafa dafa dafa fees waaw waaye nag ñu ngi delloowaat cant gi suñu boroom di xam ne yàlla suñu boroom moom lu ko soob rek lay def fa xaaloo li maa yuridu ñu ngi sant bu baax yaaram. waaw ah, dëgg la ñu ngi sant yàlla bu baax jullit yont bi di sant sëñ Tuubaa mi ñu boole ak moom. santaat bu baax maam Cheikh Rafal wax ci moom sax dañuy diis ndax ni mu meloon ci man man waxuma kenn mais man ni mu meloon ak man rek. nga xam ni tey bi may xale ba tey muy mil 2005 ba léegi Serif Abdourahmane Fall Tilala mosul nekk fu mu fu mu taxaw bëgg man ma taxaw fa. maanaam fu mu mës a taxaw rek day bëgg mën na ci wetam nga xam ni day dem ba njaboot gi sax bu demee ba dajaloo su ma ci nekkul danaan nañu woo Saliou Touré muy sama lépp di sama ndey mate ma ko di bàyyi ci man mate ma ko di wasila ci man it mate ma ko ba ci dem gii nga xam ni da ko doon dem bokk naa ci ñi mu waroon àndal musul jóg te ànduma moom ci biir oto kon man maa man maa ñàkk waaye maa santaat maa santaat bu baax. dem gii rek daf maa woo bi ñu ne suba la ma ne foo nekk ma ne ko wàcce gu ma mu ne mooy ñëw naa indaale gel septique yi ñuy raxasee loxo indaale ay masque ak gants yu ma sol te ñu tama wàcc dañuy ànd dem Poroxaan ma départ ci kër gi fanaan ñu demee ma fanaan fi ba ci bi moom moo ma yéene ma naa naa xëy dinañ ma woo xëy ma woo xam ni man moom rek laa am moom rek laa xam waaye nag dañuy santaat bu baax a baax te di ñaan yàlla yokk ay leeram te njaboot gii mu fi bàyyi suñu borom teg leen loxo te it ñu am dëggu ak topp ak jaajuwaat te xam ne ñun ay murit lañ nag bu lépp jàllee seen tuwaay ak seen xibaar lañ ko toppee woon te ñooñu liñ jàngale woon du fi jóg kon tey ñun ñëpp dañuy takkuwaat taxaw gi ñu taxawoon ci wetam gëm gi ñu ko gëmoon ak wóolu gi ñu yeesal ko ci njabootam gi te fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi te xam ne dara du saay dara du boobee sant nañ bu baax a baax jërëjëf